ci tënkuk waxtaanu suba teel gi ñu koy wax briefing ci la équipe de supervision yi nga xam ni ñoom ñoo sàlloo wàllu kër docteur yi nekk ci kër ñang bu soobee daaru rahman ak daaru xuddoos tàmbale passage bu njëkk ci campagne CPS atum 2020 mu di ab waxtaanu tënk boo xam ni digleeg équipe cadre bi la teyit nekk na loo xam ni mënul ñàkk ci ni ñuy planifier activités yi ñu bëggoon nag lépp lu nga xamante équipe de supervision bi waxtaan nañ ko ak euh, équipe Kër bi ci li nga xamante ni moom mooy cible bi ñu xool li nga xamante ni moom mooy carte yeeg ndax matériel bi nga xamante ni moom lañ leen joxoon ndax lépp yemb na ak équipe yi kañ lañu dem sur le terrain ndax da am solo teel a dem bi ak li nga xamante ni moom mooy les médicament d'urgence yi nga xamante ni bu xale bi amee ay effets indésirables ñu indi ko au niveau du centre de santé su ko defee ñu mën leen a teel a jël en charge pour mën a fexe ba nga xam ne dinañu aar xale yi ci feebar bi nga xamante ni moo di sibiru. gannaaw gi ci la superviseurs yi jëm ci relais communautaire yi nga xam ni fekkoon na leen ñu nekk ci terrain bi ngir joxe doom yi. ba léegi dañuy def suñ première passage rek mooy trois jours yi mais tey mooy premier jour bi bu ñu xëyee dañuy fexe ba couvrir suñu zone. loolu dañuy def le maximum pour nga xam ne suñu zone bi nga xamante ne ni moo commencé par exemple ci mbedd bi ba àgg ci tali tali bu bees bi. ci kattanu yàlla bëgg nañ ko couvrir ci benn fan bi bu fekke ne loolu dina mën a nekk. docteur yi joxe muy doom yi daaw man toppoon naa traitement bi ba mu jeex ba ma ko toppee gis naa ci résultat bu baax a baax ndax résultat bi mooy ña ko naanoon ba nii may wax ak yow kenn ñëwagul ne ma sama bopp mooy métti ba tax na biñ yàkkamti woon naa leen man soññ naa leen ay yoon sax ngir yàkkamti liggéey bi nii ngir xam gi ma ko xam. daa daanañ daanañ xëy ci hôpital ba bëccëg suba ngoon booba ak daaw ba ren moom biñ ko tàmbalee léegi nag. wax dëgg yàlla moom euh, wamatuma ko wamataguma gone dem ak moom ci hôpital ba ca waaw ngir si buru atum ren bi nag ngir bàyyi xel mbas mii di coronavirus wàllum joxeem doom yi waajur yi lu ci ëpp ñoo koy def ci teewaayu ñi nga xam ni ñoom ñooy relais communautaire yi